Bienvenue sur Salam Vision. ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaw waaj lu rëy rëy loo xam ne waaj nañ ko ci diir bu gàtt ba sama borom tey dogal ko ñu fas yéene ànd ak sëriñ bi duma leen wax dara nag dama koy bàyyi mu nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi Cheikh Ibrahim namm naa la réew mi namm nañu la booru ñoo la raw ñi ngi lay fay nuyoo ñi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew yëpp leen waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillah sëñ bi ñu doon waaj lu ama am am solo muy sa tukki ba du tukki Maroc dem nga fi sax ay tukki yu bari macha allah ci diggante bi gis nañu teraanga yi gis naa grand coroté bi ci biti yàlla ràpp ak jàmm jig la ci kàttanu yàlla ngay fas yéene nag jëm ci dëkk ba nga xam ne moom mooy Maroc di déplacement boo xam ne du n'importe quel déplacement ndax kilifa gu yàlla baaxal moo la fi jëlee ngir nga ne ci boppam ma bëggoon sëñ bi ñëw waxtaanee tukki bi ndax damaa bëggoon suñu mbokk sénégalais yi nekk. ci les pays arabes surtout Maroc jariñu ci tukki bi sëñ bi tukki bi relation boobu naka la demee tey ba Cheikh Ibrahim fas yéene takk ay bagages dem Maroc. waaw buur d'abord Maroc moom réew moom miin la ndax yaakaar naa bi ma commencé dem Maroc ak léegi mën na sept te at mu jot dinaa fa dugg benn yoon tukki bii nag mbokkum taal bi mu nekk Amérique. moo am ay ñaan yu ma doon ñaanloo loo gannaaw màggal gi sax laa ko bëggoon a defi waaye hmm. mënuma foon a bàyyi màggal gi ndax loolu moom du xalaat hmm. gannaaw ga moo tax ma ni ko dinaa ko def ci diggante gàmm gi ak màggal gi moo tax ñu jàpp ko samedi bii di ñëw insha allahu rabbi hmm. tukki bi nag tukki baatin rek la ndax borom ismullahil azam boo ko yëkkatee di ko ñaanloo ci yàlla fi dal xelam rek ak fi ko suñu boroom jëme rek foofu la jëm moo tax ren ñu jàpp marok ndax Maroc dëkku ijaaba la dëkk bu neex a ñaane la waliwu mag wa Seydina Cheikh Ahmed Tidiane foofa la nekk fee siyaare naa ko juróom-ñaar yoon at ma demee dinaa fa jàll kon daal mbokk yi nekkee côté boobu yëpp li ma fi indi mooy dafa am xalootu bu ma fay def si waaye képp koo xam ne bëgg na ma faa gis insha allahu gannaaw loolu dina fa mën a gisante ndax diir bu gàtt rek laa fay nekk kon sëñ mi ñaan bërëb am na ci solo wala soxla si mooy tollu aajowoo bërëb bu ñu ko war a defee. ñaan bërëb am na ci solo ndax yonent bi bi muy riñaan fa la bàyyi màkka dem Baytul Muqaddis te Kaaba gaa ngi fa kon am na tegtal bu ko suñ borom jox. sidna Moussa alayhi salaam keroog bi nga xamee ni suñ borom mi ngi bëgg a moom ci ay kàddu. daf ko génne fam nekkoon woo ko ba tuuru siina mu wax ak moom bërëb ba am na ci ay jeexital maanaam ñaan dafa am bërëb yuñ koy defee ji liggéeyal suñ boroom it dafa am ay bërëbam xam ni ay bërëb la Maroc nag bokk na ci bërëb yi nga xam ni dafa neex a ñaanee ndax dëkk bi ci boppam dafa am ijaaba ne ko loo fay wet rek bunt bi da ngay jàkkaarlu moom doo ci am benn jafe-jafe buur fan yi nga fa nar def sëñ bi ak ku ne xam na ni foo déplacé wu communauté yi dañ la fay fekk est-ce que diir ba nga fay def dana doy pour régler soxlay jaam yàlla yi. waaw Maroc moom jamono bu ma fay dugg bu may génn may xuloog ñoom ndax damay bëgg a dem ñun ma doo dem te nga ni gàmm gi itam dafa am ma ci war yu bare bare bari Thiénaba laay gàmmoo ci sama kër waajur wu jigéen te la fa war lépp loola maa fay def te mënuma faa ñàkk. Mm. moo tax tukki bi moom du mën a yàgg tukki bi moom gàtt gàtt fukki fan rek lañ koy tënk waaye yaakaar naa daal la ma la waxoon ci wàllu ñaan man nekkuma kuy ñaanal nit ñi kuy faj seeni aajo la mm. loolu nag koo xam ne danga am lenn loo ci ixtilaaf rek jéemal a gisee suñ borom mi ma defal teraangay loola nga ca wax ca ak moom waaw yoruma kurus rek di nattaka gam-gamle mm. dama am ndigalul ñaan dox sirru ci mbooleem tur yàlla yi ba yépp ma jekk ko dajale ko nag ko téel benn rakku dama doon woo léegi di am lu may defloo ci doomam ma wax ko bu defee lii rek wér mu def ko daal di saafara mu yàlla na yokk xam na yàlla yokk xam-xam ma ni nag fi mu ñu wàññi ko moo <laughs> ma gënal ñu yokk ndax diis na dégg wax bi su ko defee daal mbokk yi nekk Maroc bu dee ñi nekk biir kaasa man Casa laa jëm si mais bu dee ñi nekk Rabat-Ville wala ñi nekk Fès wala ñu nekk Agadir wala ñu nekk Tiznit wala ñu nekk Oujda ñoom ñëpp képp koo xam ni jokkoo naa ak man mën na maa fekk Casa ndax duma ma de déplacé wu. bu njëkk nag dama daan déplacé wu ndax nee naa la Maroc ñëpp am na ay marokin xam ne maa leen ko gën a miin te itam nii may jugee di dem Sénégal yi di ma soxla nu ko raw fuuf la fa kilifa ay marocains yoo xam ne ay kilifa lañ toog di ma fa xaar. waaw du xaw a yomb nag waaye képp koo xam ne daal góorgóorlu nga ba gisante ak man rek yàlla mën naa def sa mbir baax. mais ci même numéro bi lañ lay jotee ci whatsapp bi amul benn problème. waaw numéro whatsapp yi may yor man du ma sensé numéro. Mhm. yi ma yor Sénégal fii ba ma woowee ci national bi di ma jot mais ba ma woowee whatsapp international whatsapp Sénégal bi rek laa yor du ma ko sensé ku ma ci woo di ma jot. sëñ bi ni muy fajee aajo ba tey lay fajee aajo mooy ci turu yàlla jarul sax. de midi à quatorze heures ñëw fi ñu du la xib ay affaire gi def yëpp sëñ bi moom turu yàlla rek ismulahi azam ba ñëpp ràññee la ci léegi boo ne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ñu ne ah yii kooku moom wax dëgg yàlla borom ismulahi azam la waaw ismulahi azam benn rek boo xam ne man dox naa ba tee rawxaanu tur bi rek kooku rek doyoon na ci nit ñi ngir ma dimbali ci te muy faatixatul kitaab faatixatul kitaab te man jekku naa faatixa jekku naa salaatu ala nabi jekku naa laa ilaha illallah jekk naa ismu saati jekku naa allahu nuuru samawati wal ardi jekku naa sortu baqara jekku naa maida jekku naa ali ximraan alxuraan laa tey bi hmm. xam nga boo demee ci yoonu murit Cheikh Ibrahima Fall keroog bi sëriñ bi pare ci moom xam nga ñu ko doon woowee baabullaahi buntu yàlla yàlla boobu ñu koy woowee baabullaahi mbir la sekkar la kooku aarif yi ñoo koy xam baabullaahi nag bis buñ ko waxee xamal ni kañ koy waxal kooka jigéen a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alxuraan boo demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa maa yi dañoo wax yonent bi ni ko yow ilhab baaban waaxidan iftax lakal abwaab yàlla su amee bunt bunt ba natt nañ ko waaye mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu woowee buntu yàlla jige goo jige rasulullahi moo tax ñu la koy woowee ñaan jii nag dama laa bëgg xamal ni la baabullahi muy bunt suñ borom man xàmme naa ko laa ilaaha kon aajo bu ma bëgg mu jaar fa mën naa ko faa defee buur man tollatuma ci ñaan ñu naan nangu naag nanguwul ak ni la demee man mbir yi suñ borom damaa may ni ma neexee noonu lañ ma koy defalee. man de keroog ba ne yàlla bindu doomu bu amul wërsëg dama tëdd ba guddi ma ne pourtant day sëñ boo xam ni dara du ko dajji ndax yàlla doomu bu mu bind bind na bind na sa wërsëg natt na ko lan mooy jafe-jafe bi kon. waaw maanaam fi ne ki gën a ñàkk ba amul fu mu tëdd dee mën nañ koo ñaanal ba mu ëppale ñëpp. ba mu am teraanga. waaw te nag suñ borom waxuma la sëñ bi toog di ñaan waaye kiy ñaanlu ji sax day kontaan loo yàlla ndax yàlla dafa bëgg ñu ñaan ko. dëgg la dëgg la. yaa dëgg xam yoon wi nag ak ñàkk koo xam rek moo fi nekk waaye daal buur la ma la waxoon daaw waxaat la ko ren mooy yaakaar du tase fii ci man te amul jenn aajo ñuy teg sama kanam te mun ma ko faj. wér na wér na. wér na man li ma gën a marqué mooy yëngu-yëngu Cheikh Ibrahima ci maanaam ci média doo ko dégg mukk def na ma déedéet defal na ma rek ngay dégg mooy jëfalante nañu defal na ma jëfalante nañu kontaan naa jëfalante nañu aajo ji faju na waaye macha allah doo dégg ñu ne mukk yónnee naa ko woo ko joxoon naa ko gisuma la ma waxoon man sax day buur bu daganoon a wax man danga may danga teggi ci maqaamam sëriñ ndax weesu naa ko hmm. ab sëriñ mooy ku defaroogul kuy làmbatoo man defar naa bay defare xool leen feneen fu ngeen ma classé fu dul ci ci gaa yi nii sëriñ weesu naa ko la Sëriñ waxoon gaa ni leen maqaamaatu xayrul xalqi laa xalqa misluhu tolluwaay yonent bi amul kenn ko mën a xam waaye sama diggante gaa yi ngay tudd nii suñu différence kenn mënu koo leeral ndax dañoo bokkul fuñ jëm. sëñ loolu def ni nga mel. yàlla man gëm ma ko suñu borom am beneen jëmuwaay mu ànd ak yow gis ci yàlla topp la su ma gisatu yàlla ci yow wàññeeku seeti yàlla ndax yàlla mi ngi fépp. sëñ bi booy dem Maroc jaaro yi day dem. jaaro yi dina dem sunguf si dina dem alquran ji dina dem. Maroc nag dinaa fa yóbbu loo xam ni. Hmm. kuñ liggéey bu ma la ko joxee nga sangoo ko fi nga taxaw mu dañ. ku ñu liggéey. ak liggéey bi nu mën a mel. nu mën a def da ngay sangoo yëng yël da ngay sangu rek ci suuf ngay commencé ba ci kaw commencé ci kaw ba ci suuf wàcce boo yëg fëggi sa tànk lépp nekkoon ci yow dañ. ku def Maroc ay at say mbir dëgër amuloo ci dara loo jàpp. kooku loolu mooy ubbeekaay. Hmm. naa ci secret boo xam ne ci basmala lañ koy tëgg kooku dinaa ko yóbbaale sangatu ñetti fan la. trois jours. bu la neexee kay bi ma lay bala maa génn mbaram nga ubbeeku kooku dinaa ko yóbbaale. say mbir nag kàccit. waaw jaaro yi nag yi ma ci yor bëriwul xam ñeent xam nga ñett laa ci jot a yor yoo xam ne dina mën a dem ma activé ko ca ña ca am sens. sëñ bi ñetti Maroc euh, ñetti jaaru waa Maroc duñ ko nangu nag sëñ bi ak ku xam jaaru yi li nga ciy def ak secret bi la ci borom may ñetti jaaru doo ko yóbbu Maroc waa Maroc di ko nangu de sëñ bi. ah bu ma fi des de te xam naa ni ki koy ñun jaaru yi duñ ko defaree comme ni ko nit ñi di gisee nii rek dafa am luñ ci def ba mu sotti ñu door koo jox joomu aadama yi. tey sëñ yàlla ko fi pareegul daal yeneen yi moom. ku ci bëggit mën nga xaar wala nga commandé ñu indil la ko après waaye moom ñett dong man mën a dem Maroc buur sénégalais bu fa am place place buy dox nga bëgg place ba na mel gën a naat ba cat ñoom day la ci woo sax dala buur man day samay mbir daan dox mais dama jékki-jékki mu taxaw buur sans place bi kat daan dox mais léegi li yàlla xam doy na. waaw man boo xam ne daa tëju ubbi ko su ma la ubbee ba pare nag waxuma la place bu doxul waaye ay xeer sax boo ko yore di ko jaay dina jaar. ay xeer sax boo ko yore di ko jaay. dina gaar man nit laa amal affaire am ak affaire ay bagage ak i place ak yooyu noonu. Hmm. sekkerab doomu aadama la ma suñu boroom xamal tuuti. loola nag laay dimbali nit nit ku am jafe-jafe jafe-jafe ba bu mën a doon boo ñëwee ci man suñ bët yii bu gisantee rek nga toog ñaan génn dem sax mu faju ësantuma nag man ma cay toog di ñaan. sëñ bi ndomba yi dana dem. déet ndomba du ma ko jox kenn musuma liggéey ndomba buur. lu tax sëñ bi lu tax loolu. waaw xam nga kenn ku ne dafa am loo xam. loo man man nitu kurus laa ismulahi azam laa maîtriser sëñ yow daal nii rek na jub xocc rek waaw <laughs> ni jamono sëñ sàmmee dafa mos a benn kàddu mu ni alquran jii may firi ngeen di yuuxu moom la ñeneen ñi di firi ngeen leen di saaga ndimbalul yàlla li yàlla def ci man nag ba ngeen mën koo dégg loolu moom suñ borom la waaye alquran du doomu aadama ya daan ñaan muy nangu ñooña ñi fi lañ daan ñaane ñi fi ñii di ñaan nag te nanguwul seenub gàllankoor la ñoom waaye ku jaar ci yoon wi loo ñaanal nit yàlla nangu ko yàlla suñu borom du gàntu ñaan boobu dëgg la mu ngi noonu nee naa leen saa yi ma toog moom eh, sama xol dafay sedd guy parce que sëñ mi ni muy waxtaan ne ak yow da nga ci xamee dëgg-dëgg doomu aadama teraanga bi ko yàlla defal da ngay gëm ne que nit ñoo xam seen bopp rek ak ñàkk xam seen bopp waaye moom toogaayam bi xamal nit ñi place bi leen yàlla teg ak dimbal nit ñi wax na dëgg catégorie gaa ñi law ko dépense yi sama classe gi moom Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran nekkul foofu te sëñ bi ginnaaw Maroc am na yeneen nag yeneen yeneen étape ndax naa leen sëñ fi mel ni jug na te bu xasee b jug moom waaw moom fim mu ne daal su ma xasee bay tukki moom lu mu gàtt gàtt dinaa def douze pays door a ñëwaat. douze pays. dinaa def douze pays door a ñëw ndax su ma jógee Maroc nii Brésil laa bëgg a dem. Mm-hmm. ak Argentine. Brésilien. door a dugg Europe su ma jógee Europe nag dinaa doxaat ci biir Maghreb bi tuuti muy réewi arab yi su ko defee nag teeree ji Amérique. États-Unis d'Amérique. ñoom it nañ ma xaar ndax ren moom insha allahu dinaa fa dugg si faj aaju ji tooññeeku ma ne nit waana ma fii fa fii sa téléphone nekk ba États-Unis seere la seere su rëy yi mu lay defalit yëpp wax dëgg yàlla yàlla moom ma dimbali ma teg sama bët fi ne gàmm gi agseegul waaye am na ñeenti nag yoo xam ne ñi ma ko jox ñëpp Amérique lañ nekk ba ma màggal gi ñu génn gàmm gee di ñëw waaw xaalisu nag yi liñ ma ci joxagul man na 4 millions yi tege te lépp Amérique la jógee lépp ci teraanga nit ki nga ñaanal ko yàlla rek xolam sedd. waaw man fi ne man ëmmub taalibe boo xam ne daa ñëw di jébbalu ci man taalibe bu may ñaanal laa ko dégg ñu la waaye sëñ Njaay laa ak man ëmma dara du génn sama nit bi fii ku fi ñëw soxlaa la fi indi. Hmm. man ñi ma àndal damaa faj seeni aajo door ànd ak ñoom. am hmm. kenn koo xamante ni si nii amuluma ko njariñ koo gis mu nuyu man ñu taxaw di wax rek xamal na ma koy ñaanal man du ma ànd dul defal dara. sëñ bi jamono yi ñu gis ne que yaa ngi waaj ubbi beneen standing fii sa watu kër muy beneen maison des hôtes sax laa koy tuddee euh, loolu maa ngi loqal ci ay mbóot waaye nag dafay baax nit ñi xam ki ñu amal affaire mooy kan ak fan la fan la teg tànkam di maison de hôtes boo xam ne mën nañu wax ne que sëñ bi million yu bari la ci def pour que nit ñi rek macha allah ku ñëw nekk ci confort nekk ci dal. mën a gisante ak moom moo xam ñu ñu ñuy jógee li wër àdduna ku fi ñëw seet sëñ bi am nga foo dalloo am nga foo ne ba sëñ bi saafara sa aajo muy loo xam ne sëñ bi dégg guñ ko wala ba gisaguñ ko ci ñaan ko du yàlla sincèrement. waaw boobu daal ni ko liggéey moom. Mm-hmm. def nañ fa petit palais pour ñun. Mm-hmm. ndax alquran su la ci yàlla teralee da ngay wane teraanga mm-hmm. fi. kon petit palais bi pour ñun la. dem nañ fa appartement pour immigré yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew di ñëw fii di ma seet si ñooñu bëgguma kenn dalate hôtel. Hmm. ku fi ñëw dinaa la jox appartement boo xam ni fa ngay dalloo ñu defal la say mbir ba lépp faju nga door a def. ay ay sëñ bi loolu yombul de. waaw ñii nekk ci réew mi wutal nañ leen bureau yoo xam ni fa lañ leen di réservoir hmm. ndax ñaan sutura la. Hmm. ñun duñ sàggi sagu kenn kenn nit bëgguñu mu fi fekkanteeg moromam. mu naan gis naa ko kër Ba gis ñu kër sëñ ñun woote wuñu mbooloo ñaan gu nangu lañu woote. Mm-hmm. waaw ak lu kilifa rëy rëy bu ñëwee bu soobee yàlla fi la sëñ bi dalal di nga bég sa xool dina sedd ba di xam ne que bërëb bi méngoo ngoo ak moom sëñ bi yaa ngi ci yoon ah euh, tey xëj na Cheikh dem na ba dama wax ni ci réew mi la bakk am na kaddu ci réew mi tey sëñ ba mu al ndénkaane ak fi réew mi toll yan kàddu la fi bàyyi dem Maroc. waaw senegal moom man comme ci ñaan la yàlla féetale mooy di ñaan jàmm sax fi te ñu dab àdduna nag ndax raw nañu bu baax a baax a baax booy xalaa xool xalaat yi doomi réew mi ak seen telluwaay dafay suufe lool ak fi àdduna bi tollu léegi nañ dabe jot na te yeewu bu baax a baax a baax a baax te sous-région bi ñu bokkal réew mi te yàlla nattoo ñu leen ñoom ñu am ay yaakaar ci ñun ñu fi ñëw di étranger yëpp ñu yaatal leen ndax boo xoolee ci internet bi taasoon tebeeg xatal geek loolu du réew mi réew mi weesu na foofu ñun réew mi li ñu yàlla defal ci teraanga mën nañoo boot ñëpp ndax àdduna nañ leen dañu gën a yaatal suñu dënn te xam ni ñii ñu yàlla booleel àdduna dimbalante rek moo ñu fi indi waaye leneen añ ñu fi buur jërëjëf mbokk yi kon mu ngi noonu li ñu cërale woon ci waxtu jot na sëñ bi di la ñaanal yoonu jàmm waaw <laughs> dinaa la namm nag a ah. dinaa la namm trop sëñ bi <laughs> di jàll yàlla ña ngi fay fekk yàlla na nga fekk jàmm yow mi leen fay fekk yàlla na nga yóbbaale jàmm euh, dellusiwaat nag rapidement revient nous rapidement te xam ne wax dëgg yàlla jàmm yàlla it woon nga sëñ bi looy tàggoo. waaw yow xanaa di la wax na nga ñëw gàmm canaba. non loolu dama ñëw canaba maa nga fa. na ñëw. nga def reportage la fa am lépp nga wan ko mbokk talibé yi ndax ay nit bu ñu la joxee ni la defal la nga def war nga leen ko wan ndax foofu la àdduna toll su ko defee nañ la invité ci gàmm ga di invité mboolem talibé boo xam ne itam yàlla def na muy suñu wëllëre def nekk fii ndakaaru mën naa ñëw Thiénaba gàmmoo fa buur incha allah buñ jazakumullah ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw Bienvenue sur Salam Vision.